bu fekke abonné wo ci canal bi ma ngi lay invité nga abonné bu ko defee nga mëna gis yeneen vidéo yi nga xamantene mom lay duggal merdi benen sa yow xamone nga ni tôt tard dina genn ba waxat ci yow waaw gaay bu ngeen gisé ma defaat ci jëm ji ñaan merdi benen sa vidéo bu ngeen gisé sama vidéo ci ginnaw avant coupe du monde mom la fi génnoon di léral na ni mo waxon né ci coupe du monde biñu wara jëm ni ci Qatar ci pays africain yi mennum Sénégal képp moo ci du genn pulam du dem sax huitième de finale. cinq pays yëpp nee na quatre pays yëpp ay qualifié sauf la Sénégal mu doon quatre yoo xam ne nii man man xamoon naa ni tôt ou dina génn ñëwaat ruus te actuellement nii Sénégal muy premier pays africain bi njëkk a ci huitième de finale du monde kon nag sagal na Afrique lii dara balaa nga koy wax danga koy seet seetaat ko wala nga am lu la wóor nga soog a wax doo yàlla doo yonenti dara wóoru la ci qualification sénégalaise nga génn toog loolu noonu yaa ngi ni am nga gàcc da nga ne légende nga woon. man naar yi da leen kon ne rek di nu xalab yàlla di leen gën a wan boppam neex di bane sia te kii xamoon nga ni tôt di naa génn bat ban ba yàlla waaye di loola nii yuuxoo goo sax tamit man dam man man man ñii xaw ma soxor la xaw ma lu doon Sénégal moom danga koy danga koy xalab yàlla di la gën a wan boppam nga koy bëgg nag sa xol di sedd yàlla na jàmm sax Sénégal yàlla nañ jël coupe du monde bi jàmm ci Sénégal su la vidéo bi neexee aussi mën ko koo bu fekkee intéressé na keneen aussi bu la neexee mën nga ko partager